je ne peux pas m'empêcher de rire si pas, déglu Farba Ngom <laughs> baal leen je <coughs> man Farba musuma xam mang koy xam <laughs> parce que man pas comprendre Nabi Vision Farba qui nous parle de droit au Sénégal Farba qui nous parle de pays de démocratie au Sénégal ah xanaa far ba tey ngay soog a xam droit tay ngay soog a xam démocratie lan moo waral xataraayu bi nga ne yow député nga ba tey dëgg la maanaam fii ba législature bii di ñëw di installé wu dinga nga percevoir sa loolu kenn werantewu ko kenn werantewu loolu ngom

Naby yow nga ne information bi le témoin bind daa di ne yow da bokk ci ñi ñu opposé ngir ñu génn ci réew mi dañ laa tere nga génn ci réew mi wala déet xamoo si dara da jaaxle far ba ni nga waxee rek ku la dégg xam ne tiit nga te man damaa taxaw pour jàppale la taxaw pour conseiller la Farba Ngom. te nag ku la mën a conseil xam nga la la lay wax jëla sa passeport laali al AIBD Farba jubalal AIBD dangaa bëgg a xam nax yow yaa ngi ci list bi wala dangaa bëgg a xam nax yow kenn terew la ngir nga génn ci réew mi dangaa bëgg a xam ndax yow Farba Ngom yaa ngi sa unité parlementaire ba war a mën a tax nga war a voyager ci àddina wërngal këpp dangay laal AIBD

te man damaa gis ni maanaam coono bii nga daj ji def conférence presse yëpp da koo jaru woon jaru ko woon maanaam dangay laal oto nànk bëri le nga ci mais laa waxa sa chauffeur mu yóbbu la AIBD dangay dem AIBD duggal dans la peau de de de de Seydou Sow il faut que tu sois dans la peau de Seydou Sow dem tester sa gàllaaj Naby Vision. ba demal testé ji sa gàllaaj. demal testé sa gàllaaj Farba Ngom damaa taxaw taxawaay conseiller la. maanaam yow Ousmane Sonko damee dafa demeeg yow xel. demee xel yow ñu sut demee xel sa xel. sa mentor sa baay ci wàllum politique di di Ousmane Sonko di euh, Macky Sall Macky Sall mi nga xamante ni nee nga yow moom ngay waatee tey nga daal di koy réitéré sa baay Ousmane Sonko sa baay Macky Sall waaw man lan moo war a mën a tax ma may may takkale <laughs> Ousmane Sonko jiw ma Farba sa baay Macky Sall ndax sa mentor la ci wàllum politique. Ousmane ko dafa demee moom xel yow far ba tey yëgoo ni dañ laa iri ba nga ñëw. Naby Vision. maanaam yow defante moo la dugal ci Sénégal parce que wax nga ko ci sa discours nee nga depuis la présidentielle ba tey yaa ngi laal vol bi normal dem nga fi Canada dem nga fi Maroc dem nga xaw ma fan ak fan voyagé nga ba sa cin daal di saf ñeex nga ñibbisiwaat waaye nag il faut rappeler que yow dangaa ñibbisi pour defante. dangaa ñibbisi pour defante ndaxte dissolution du conseil économique social et environnemental et de motion de censure bi Abdou annoncé assemblée nationale Mom ngay sa bol dem dañ iri ba nga frontière game la le le ki ak yow Farba dama damaa jug pour jàppale la waxtaan ak yow ci xel parce que man j'ai l'impression que tu es perdu Farba yow ba xam ba tay xamone dañ la iri ba nga ñew ñu tëj frontière nabi Vision. yow yëgoon bi nga dugg sé yak say morom ba tay lañ na yeen tëj nañ frontière il faut maam ko lo dimbali wax la li. dañu la iri ba nga ñew ñu tëj frontière ndaxte bu dissolution assemblée conseil économique motion de censure bi Abdou annoncé depuis lors c'est temps que Sénégal defante Sénégal ni <clears throat> assemblée nationale l'ancienne motion de censure gouvernement Ousmane Sonko Sénégal on a compris Yo, loolu Sénégal ñu laal tëj frontière yi fat ba nga noonu noonu la Sonko joobee yéen bàyyi nga ko Abdou mu ndaw Abdou Mbow laay woowee abdu mu ndaw su may wax ngeen comprendre su ma nee abdu mu mag Cheikh Bara Dolly laay wax léegi yow Abdou mu ndaw motion de censure bi bi mu doon annoncé moo la tax a ñëw Sénégal Naby Moi la tax a ñëw Sénégal léegi yow conférence de presse bi nga wax ni, bi nga def ni, naan wa, ba je suis député ba mangi maa ngi am sama immunité parlementaire c'est facile à vérifier <clears throat> Abdou mu moy mooy mooy Abdou Mbow <laughs> Abdou Moumak. <laughs> Abdou Moundaw moy Abdou Mbow Abdou Mak, <laughs> Abdou bu mag Cheikh Bara Dolly moom buruxlu national da fi a organiser pour rek bokkaat moom mooy Abdou mu mag léegi Abdou mu ndaw moo fi bëggoon a organiser <coughs> Abdou mu ndaw moo fi bëggoon a organiser benn motion de censure motion de censure boobu noonu ak solution 16 ak HCCT Farba Ngom bokk na ci li la jëlee bitim réew andi la Sénégal <coughs> nga ñëw taxaw taxawaayu defanteeg gouvernement Ousmane Sonko. waaye dañ laa iri ba nga ñëw ñu tëj frontière yi ba tay yow compo ko wala da ngay dof doflu il faut que tu sois dans la peau de Seydou Sow parce que moom au moins dem na testé ji gàllaajam far ba soo bëggee xam nax yow dangaa am immunité parlementaire ba tey soo bëggee xam nax yow am nga droit voyager ba tey dangay laal oto bi dugg AIBD conseil bu ma lay jox la. Naby Vision. dangaa bëgg xam nax yaa ngi ci liste bi ba tey. demal testé ji sa gàllaaj da ngay dugg AIBD laalal vol c'est facile à vérifier xam nga maanaam Sénégal da ngay gis koo xamante ne ñu ne la yow yaa ngi ci liste bi nga nekkoo ci liste waaye yow nekkoo ci liste bi laalal vol bi da ngay jubali AIBD. bis boo demee nag ba jël vol dugg AIBD bu boobaa dinañ xam ne information bi le témoin joxe woon du dëgg c'est facile à vérifier waaye yow dooroo atte woo xeex yaa ngi toog di xataraayu naan bokkuma ci waa bokkoo ci demal jël vol bi demal AIBD euh, Farba motion de censure moo la andi Sénégal daaneel gouvernement Ousmane Sonko moo la andi Sénégal dañu laa iri ba nga ñëw far ba ñu tëj frontière yi game fii la dangay dem AIBD bis boo demee daa di ne génn nga réew mi Naby Vision boo xam ne nga jël yoonu suuf bi xaw ak rëccaale dangay laal AIBD bu ko defee ñun dinañ xam ne information bi le journal le témoin joxe woon boole la si liste bi dinañ xam ndax dëgg la wala du dëgg c'est facile à vérifier